bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yalaw uqal bukaaw ala saddaati maay bëgg a tey jii ma way fii sangub góor ñépp yalaw kookaa di seex fallu kookaa màgg moo rey mbir moo gën ñu njëkk ña gën ñi ñépp yalaw kookaa di seex fallu kookaa màgg moo rey mbir moo gën ñu njëkk ñëpp gën ñi ñëpp yàllaaw ku mel ni ma mosu fi am ku dootu fi am te dootu am fii ci duniyaa wóor na yàllaaw tey jii ma jooy sayxuna Seex Fàllu mbar ma ni mes mboolem lu nekk ci duniyaa jooy na yàllaaw tey jii ma jooy sayxuna Seex Fàllu mbar ma ni mes mboolem lu nekk ci duniyaa jooy na yàllaaw murit yi xaadir yi ak tiijaan yi ko jooy ak suusi ak asamaan seeg ndoxum yàllaaw ak jant weer wi ak biddiw yi ko jooy ak doj ak njanaaw yeeg njaayi àll yàllaaw malaayika ak ginne ak yoneen yi lépp ko jooy ak sabaya xutbu yaag wali yàllaaw wéetal na ruy ci duniyaa yépp kullu moo ru yépp ko cey seex fal yàlla jullit yi ak nguur gi ak àddina ñépp a ko jooy nun ñépp jooy ko ngir baaxam ga yàlla nawet bi jooy ba far gàncax gi lot na tey ru yépp nan ngir seex fal yàlla mboolem lu nekk ci duniyaa lépp lépp a ko jooy lu nu xam xamul mboolem lépp yàllaaw masi lañang moo way way wi di sàkku yi ngërëm ci yàlla ak ci sëriñ tuubaa fa yàllaaw lañang moo la way way wi di sàkku yi ngërëm ci yàlla ak ci sëriñ maa ngi jógee fii ba Dakar waaw ni murid yëpp dafa ñëw rek laa dafa ñëw waaw waaw ñaan ñaan ñu yàlla musal ñu si balaa bi quoi. Dakar laa jóge xanaa bisu sëñ Fallou bi rek ñëw màggal si ci jàmm wàññeeku si jàmm di ñaan yàlla balaa bi ñu wax ci dëkk bi yàlla na ko fi sunu borom jëlee ci bisu màggal gi yàlla na ne mott dellu fa mu jóge woon ci barke Serigne Fallou yàlla defal ñu jàmm defal ko ñëpp defal ko àdduna bi yëpp barke Serigne Fallou Mbacke. maa ngi bàyyiwu dëkk bu ñuy wax wurusu gi ci Matam ci ci Matam xanaa ñu magal si magalu Kazu Rajab ñu siyaar sama sang Cheikh Abou Mbacké Falilou wute nañ ndax am na loo xam ne mooy li ñuy waxoon naan affaire feebar bi tax na ñu bëri ñëwuñu mais man nag gisuma feebar bi sëñ Fallou rek laa gis tax ma xëyee bureau soo ji ànd ak sama waa kër yi it ah sant sant rek sant sant sant sant yàlla sëñ Tuubaa sëñ Fallou ndax ah, lii moom ñaanoon na bu yàgg waaw li ma doon wax suñu ko moo fi am mooy lii rek fa min mustakin faqran wa min mustakin benn loolu la waxoon yàlla ñu ko ñetti kuréel yi nga fa am ñii dañoo dañoo dañoo dañoo amul dara dañoo yorul dañoo ñàkk amuñu dara ñii dañoo am ay feebar yu ne ci seen yaram te xamuñu fu ñu koy fajee ak fu ñu koy fajee ñii di ay gor yore bor te xamuñu nu ñu koy fayee. waaye nag fukkul daa fi am sekkal ji ñu ko moom yëpp nag na ko na ko dàq te jëlee ko fi. te wutal fi xewal ak ak barke ak ak dimbal loolu waxoon na ko yàlla bu yàgg yàgg yàgg li nag dund gi nag suñ dund gi ñuy booleeg lii. maanaam feebar wér man mën a bi ak am loolu moom dund gi ànd te suñu borom waxoon na ko naa leen nattu ci ay wala lu seen xaw fi wala juuxi wala naqsu lu gudd gudd la li waxoon na ko xanaa ñun julli suñu fàtte rek waaw war na bët yaa ma ko waxoon ni naa leen nattu ci ñàkk naa leen nattu ci xiif naa leen nattu ci feebar naa leen nattu ci ay jàng in ci alxuraan dama ko jàngul kii war na bët di leen ah? amul ci ñaan fi ne maa ngi soobu telu sel ak sama saw mooy rax sa waaye li ma gën gëm mooy ñaan gi sañ-sañ ya ak doole jaag xar baax ya yàllaaw kuy rëbb gaynde yarug laspeer asal du ko jàmbaa ba sax du ko saf lii wóor na yàllaaw kuy rëbb gaynde yërul aspeer asal du ko jàmbaa bal ba sax du ko saaf lii war na yelaaw waykat yi lay léebu ngir seen wax ji tut ji nu wax Seex Fallu gaynde moo man góor ñi yelaaw